Bismillah. Waalaikumsalam. Salah yang aja. Ini si jambu bang. Salah kayaknya. Mau apa ya? Ini kok. Sendiri. Mande sambil hari bila si itu online, suruh sendiri melakukan mengingat, mengingat mengingat. Waktu dia lebih maya lebih boleh angin bertemu cuma kok. Suruh sendiri. Naik. Net lenak segi menyebar lelaki. Naik, wah dia. Bagaimana? sëriñ da wax dëgg yàlla jaaxle moo ma fi andi daal ma waxaloo nag sama xarit bi mu am naa sama nit koo xam ne mën na la cee dimbale waaw loolu daal moo doon suñu tànk wax dëgg yàlla damaa nekkoon nag sama borom kër liiru fanweeri at ñuy sëy nag sëy bu rafet ñu am benn bant mu ñëw naa ko nag mu ñëw naa ko côté bu nekk wax dëgg yàlla ndax su defee benn ma def benn ànd ci kër gi ñu bokk lépp dara musukaa nakari ci man mm-hmm. waaye dafa xëy xëy rek indil ma wujju loolu nga xam ne boo juutu oto buy wàcc day mel ne looy looy kii gis nga avion buy naaw noonu ah loolu mel nga nekk si biir mel ni sa nampataang la ñuy xëcc loolu la mel te ñoom daana may daal moom kaw rek ma joxoon ko daa koy kii mu bonde cap ma cap bonde boo capee mu bonde. laa yow ni nga mënee duulee. lan laa koy da ngaa mën a duul laa la. man nee naa la avion kese commencé. dé dé avion sax da nga koy jàpp. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaye laa ngi nii. laa ilaha illallah sama def la nii. laa ilaha illallah damaa ne woon nag. ah laa yow nag moom li ngay gisee nii sama doom la de mooy sama daaw. tey bu dul dul. dama génne gerte dama génne gerte. jàll jàll jàll. yow xam nga sa bopp. yow ku fekk as na. ni aku tu. Eh, dek, dek, dek, baik. Eh, lah, lah, lah, kalau lah, dulu sama rumah. Kii sama bayi, kii mak umum. Bayi lah. Kii sama dia. Lah, lah, lah. Ya ini. Bawa dia gitu. Nah, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Ah, apa? Apa? Ya, ya. Apa lagi? Ya, ya. sexual voilà apa waxal gën a léegi xam nga waxal apa maa lay yore yaa xam na la yaa la taxawul wujju daa baax da dundal kër xanaa sama nijaay waxuma lool rek yow nijaay nga demoon dëkk ba dëj ñëw ba nga indaale naan ay wujju effectivement nag malaaka moo dëkk apa ba jël ruuri da da da remplacer keneen ba jël ba tal ka loolu apa bu egg suuf bu egg bu kaw. te loo mel. ah man ak yooyu ñu naan toog fii si fa tey bi. juum nga de loolu nag jeex na tey lenn mooy mën a am. da ngay aw ñuy jël ban toog wala eh eh eh eh góor du nga béy. képp sa képp sa xel. waaw mayee si nit ñi ah wax dëgg nii la jigéen ñi day jege jigéen ñi am ko bopp. jigéen mag laa ko doon waaw. mu ne ko tey de laa waaw. laay. mën na la cee dimbale. waaw loolu daal moo doon suñu tànk wax dëgg yàlla damaa nekkoon ak sama borom kër. riiru fanweeri at ñuy sëy nag wax dëgg yàlla ndax su defee benn ma def benn ànd ci kër gi ñu bokk lépp dara musukaa nàkkari ci man waaye dafa xëy xëy rek indil ma wujju waaw gaa sax ne wujju bi moom nàkkariw ma ndax wax dëgg yàlla dañoo judd fekk suñu ndey di wujje waaye bu fekkoon wujje kese la mu neex ndax mun naa kaa gérer waaye sama borom kër dafa dem ba daa daa jeng moom daal ci sama wujju boobu la féetee xaaj kër ga amatuma lu ma neex ci moom noonu daal lañ nekkee ci kër gi coow guddi coow bëccëg man daal mën naa ne la amatuma lu ma neex si sama nijaay man ak sama doom bi daf ñoo beddi daal man ak sama benn bu góor bi daf ñoo beddi ma ne woon nag nañ ñëw rek nga jàppale ma ci ma hmm. doon suñuy tànn. baa nga fàttali woon tur bi fii. Ndey Jaw. waxaatal. Ndey Jaw. Hmm. mu ngi nii. Hmm. mu takkee kii rek léegi ah bu amee weer ci la yem. kii moo diisee lépp. ba kat démb mu njaay fekk nga nen ci buntu kër gi. moom ah. kooku bugg la kooku ah déedéet kooku baaxul yow sax muñ lay jeexal. Hmm, man nii. muy mhm. mhm, nii. Hmm. kii bu na sa tànk. boo demee sangul set. mais boo paree waxal si man tamit. boo demee sangul set. Mhm. benn bant boobu ngeen am. day gérer. This is mini. Né? Derbi. Wa wa. Uhum. Wa. Wisang gum sang te gum ti dusbi. Hmm. Gum sang gum ti dus bo babu. Mini. Am koy dus ba dañ fa téré sax. Hmm. Mhm. Mhm. Mini. Baal ma fàttali ma turam. Kan ci sama borom kër. Non non sa wujju. Sa sama wujju. soobee yàlla laay dina xam ne. sëriñ loo ma ci mm-hmm. na moom. Mm-hmm. Mm-hmm. sa borom kër nag nu mu tudd. Seck la tudd Seck Sëñ Seck. وقالت الحمد لله رب العالمين وقالت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين خامل تاي بسنيك فين توجي ني سعاد فجنا بسنيك تاي بوانا سما يندونغو تاي بوانا سما يندونغو تكيف كموسى دون سما نونغو دون موسى عملو لانيخ الحمد لله رب العالمين وقالت مدي لا تقلو قمر mu ŋàngatee jëme ko ci yow sax billaay bu nelawee nelaw boobu du neex ci yaramam du sedd. waaw sëriñ alhamdulilah rabbil alamin. waaw bëgg naa daal mu may ma jàmm may sama njaboot jàmm. daal loolu su ma la dimbalee tamit. dimbaluñ si man mi nga xam ne sama yoon nekku ci sax nag. ah. na seen xel daal kii bu tuddatee seen tur bu nelawee nelaw boo xam leen ne neexul bu la ramatee xol la xol ba neexul sax bu tëddee guddi xam ne tëdd bi mu tëdd neexul. gis nga lii yaa ngi koy gis nii pour sa jëkkër la saa bu dematee bay lekk rek defal boo daan bokkee bu waree ay ci yow defal fii ak une semaine boo ci gisul résultat woo ma yaa ngi wala nga laaj kii mu jox sama numéro parce que moom xam na li ma mu ne dama waxantu su ma naree waxantu li may def lii samay maam ko ñor duma waxantu mm-hmm. te gis nga li ma lay jox boo ko sànkee sànq sa bopp parce que mu jugee sori sa waay maamu ko jox na ko fonk comme ni ma la fonkee am suuf bii boo demee na nga ko wis ci kër gi lépp loo xam ne dañ koo xaajale woon naan kee ko moom sotti ko foofu noonu lépp lu ñu tracé loon comme limite sotti ko foofu bu ñàkkee fere limite boobu lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw moo ko nar moom. jërëjëf sëñ nag amal jàmm rek. jàpp ci lii ba mu ñëwaat sëñ bi xeeb naa laa koy def tegal fii du pour man pour sarax yi génne la yow moom amal jàmm rek yow yow samay maam laa la ku bëgg def si yow day sonn wante du ala am muku abatal ku la am moom ma bàyyi li may def xaddi. jërëjëf sëñ bi dégg leen loxo yi taal def ay ñaan. baal ma fàttali war ma tur bi fii. waaw ndongal yow acca tur bi. su ko naka jam jamaale jamaale lam dem fa la eh ah eh da leen bëgg a téye yàlla nga taxaw allahumma amin dem leen ba kenn laal leen